jërë ngeen jëf ci teewlu bi mbokk internet yu 5M TV Sénégal njiitu réew mi fi nekkoon di Macky Sall moom nag dafa jote rek ab xale bu jigéen foofee ci aéroport nag bu Casablanca ca Maroc ginnaaw bi mu àndee ak soxnaam moom nag xale bu jigéen boobi mi ngi wuyoo ci turu Aïcha Camara ginnaaw gi tam rek mu ko doon jàll baat ñeel kon événement yi fi amoon di ko ŋàññi bu baax a baax tax na sax nag ñenn ci rek këru taskatu xibaar yi fa nekkoon kon ñoo daal di gis vidéo boobe ñu ngi ko fësal jamono ji ci réseaux sociaux yi kon muy wër adduna bi ñeen ñi nga xam ni kon teewee nañu ko ci la xale bu jigéen bi nag di Aïcha Camara ci ay baat rekk di ko teg ci njiitu réew mi fi nekkoon ba tey ci mbir moomee la ñuy desandi nag ñu ni sax nag ca Maroc loo xewee ci guddi samedi jàpp dimanche xale bu jigéen boobee di wuyoo rek ci turu Aïcha Camara dafa jóge fii ci Ndakaaru di dem ca Paris daal di royal air Maroc ginnaaw gi ca aéroport bu Casablanca la daal di uh, gisee rek ak yi Sall ak ci di uh, soxnaam uh, jamono jooje nag moom mii di sénégalais daal di am lu toll ci juróom benn fukki at ak ñaar daal di nay rek yëkkati ay kàddu daal di koy wax nag njiitu réew mi fi nekkoon di ko xamal ni ko lu tax rek mu rey xale yi fi nekkoon ñeel kon rek fitna yi fi amoon tax na mu ni ko sax danga war a rek jéggalu bu baax a baax mu ni nag tontu jamono jooje ci la rek ki nga xam ni moom mooy jabaram daal di koy rek saaga moom Marème fay Sall ginnaaw gi ci la ko delloo saaga yi nag ñu ni garde du corps yi ci lañuy ñu ñëw ci moom rekk ngir daal koy jàpp. moom sax ginnaaw bi ñu ko jàppee kon bàyyi nañu ko rek jamono ji ñuy waxee ak yéen foofee ca Maroc ginnaaw rek kon la mu jotee joteloon ak Macky Sall moom nag mu nekk ab ressortissante sénégalaise boo xam ni dafa rek am assistance juridique ca ministère de l'intégration africaine ak affaires étrangères bu Sénégal ginnaaw bataaxal bi nga xam ne rek fësal nañu ko ci ambassade bu Sénégal ca Rabat ginnaaw coow loolee ne kon nee nañu moom ndaw si nag daal dinay delluwaat kon rek ca. mbir ya mu doon def nag ginnaaw li nga xam ni moom la joteel ak njiitu réew mi fi nekkoon ba ñu téye woon ko rekk ca ay kàddu yi nga xam ni moom la doon yëkkati ca kawam.